Euh, balaa may ñëw ci yéen ma ñëw ci li waral bés bii di màggalu Mbacke Kajoor ndax dafa lié Cheikh Mouhamadul Amine Bara ak waajuram Cheikhul Khadim dafa lié Cheikh Mouhamadul Amine Bara ak taalibe Sëñ yi ndax gis ngeen suñu borom subhanahu wa taala bi mu tànnee sayyiduna Muhammadin alayhi salaatu wasalaam yónni ko dafa wax ci alquran biñ demee ba julli ci mat ab lim dana yaa ayyuha allazina amanu ittaqullaha wabtaqu ilayhil wasila yéen ñi gëm yàlla na ngeen ragal yàlla te bul wut wasila seen diggante ak seen borom wasila nag mooy jaam bi lu mën a aw ba àgg ci boromam loolu wasila la waaye liñ ci gën a xam mooy nit koo xam ni moo la gën a xam yàlla gën la koo ragal man laa teete ba nga àgg ca ci loolu la saxaaba yëpp ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ko ñu fas yéene jébbalu ci yow waaye dañoo bëgg suñu jébbaloo nga warlu ñu aljanna ci njébbal gi nga xam ñu ko jëf jëm ci yow yonent bi wax leen ni leen àjjana dem moom moo ko sawara moom moo ko suñu borom moo ko moom waaye bi ñu jépp la euh, benn aaya wàcc ngir dëggal loolu saxaaba yi bëgg inna allaha ashtara min al muminina anfusahum wa amwaalahum bi anna lahumul janna yàlla ci boppam nangu na jébbalu gi ngeen jaayante ak yonent bi waaye di leen ko fay aljanna mu ne laqad radiyallahu anil muminina is yubayiunaka tata shajarati ron garab gii ñu ñëw jaayante teg yow yàlla gërëb na ko suñu borom jàppal na leen ko nangul na leen ko yoonu jaayante boobu nag moom la ko tedd ki Ahmadu Bamba doon yeesal bi mu jógee eh, Saalum ci Maba Jaxu Ba ànd ak waajuram ñu ñëw fii ci Pataar bi sanc fi ba Momar Anta Sali jóge fi sanc Mbàkke Kajoor en 1880 lañ sanc Mbàkke Kajoor bi mu sañcee Mbàkke Kajoor ku tedd ki nekk ca daara ja ànd ak taalibe yëpp di jàngale di liggéeyal waajuram doon ko jàppale ci lépp ba 80 1883 ci la Momar Anta Sali génn àddina sëriñ bi jël ko yóbbu ko deqale denc ko daal koy wutu ca daara ja di def na waajuram doon def ci jàngale ak tarbiya ba sayyiduna Muhammad moom ku tedd ki moo xëy benn bis ni shafahani rasulullahi sallallahu alayhi wa bi xawlihi rabbi asxaabuka bil himmati wala tudaabi bi tarsufaqat ni moom sëñ ku tedd gi moo ko bind moom Ahmadou Bamba ni yonent bi alayhi salaatu salaam moom feeñu tey nee na saxaaba yi na yonent bi àndawoon ak saxaaba ya ak yoon moom leen awale woon naa ci ànd ak yéen man araada maa arad naa nag fal ya saj bi seydina képp koo xam ne bëgg nga loola royal ci man dox sama doxin waaye am njàngaleem kese dootuma ci yem loola moo yoonu jaayante jaayante mooy joxe sa bopp te yàlla tax muy jébbalu moo waral sëriñ bi yorul ab tariixa mosu koo wax mosu koo woote mosu koo bind yonente bi alayhi salaam sunna si mu yoroon moom la ko tedd ki ñëw di ko yeesal lil Mustafa nawaytuma yu jaddidu sunnatawul xaraa wa inni ahmadu diinun siwa islaamin laa yuhmadu indal ilaahi wa bihi nu jaddidu sunna sayyidina Muhammad alayhi salaam la ko tedd ki doon yeesal bi mu waxee loolu monsieur le gouverneur am na booba ñeent fukki góor yàlla yu fa nekk yoo xam dañoo jaayanteeg Sëriñ Tuubaa ci bis boobu euh, moo tax may indi histoire bi bi mu jaayante jaayanteeg moom sëñ bi am ab diir jëli benn baayam sëñ Cheikh Ibrahim Mbakke jox ko Mbakke Kajoor mu nekk fa ay waa këram lañu ñu nekkal ànd ak ñun ñii suñu ginnaaw bi sëñ Baare yi wate samp kër itam foofu la ko Sëriñ Tuubaa indi bi sëñ bi euh, defee loolu ba noppi daal di ñibbi Mbakke ba war am fa ab diir dem si Fadil pàkk bii mu doon wër nag muy Touba suñu boroom ni ko pàkk la boo xam ni ak bunt la ci buntu àjjana yi foo ko bëgg ci àddina ma defal na ko muy wër Touba ba gis ko 1887 88 mu bi mu ko gisee mu dem fa moom sëriñ bi sanc Touba ci at moomu dem bi mu ko gisee dafa woote waa Daaru Salaam ñëpp ñëw daal Touba ñu sanjal ko bis boobu sanjal ko at moomu ci lañ sanc Touba al Mahrousa 1888 87 bi ñu ko santee mu indi yaayu Cheikh Mahoudine Bara mi nga xam ne moo jur Cheikh Moustapha jëlee ko Daaru Salaam indi ko Touba ñooñu ma wax ni dañoo jaayante rek ak sëriñ bi ñu ngi ànd ak moom keroog bi Cheikh Mahoudine Bara feeñee àddina kii ñuy fàttaliku 1891 ci Touba menn moom rek moo fi ganee àddina ci doomu sëñ Touba yu góor yi sëñ Touba dafa woo ñooñu ñëpp ba ñu ñëw mu ni leen li ngeen doon wut ci seen borom lépp gan gi ñëw bi indil na leen ko bis boobu la ñuy fàttaliku mosul góor moo tax bu njëkkoon dañ daan fàttaliku bis bi mu génnee àddina waaye bi Cheikh Saliou ñëwee sëñ Barlaat mi fekke na ko mu wax Cheikh Sidi Maxtaar ni ko bisub naqar bi bisub mbégte bis bi nga xam ne ci la ak Cheikh Mouhamadul Amin Bara ganee àddina day bisu ndimbal di bisu taw féex di bisu faj aajo kon nañ koy fàttaliku bis boobu la ñuy fàttaliku mooy màggalu Jumaadul Uulaa ndax Jumaadul Uulaa mooy weeru xolof yi ci la Cheikh Mouhamadul Amin Bara ganee àddina moo tax Serigne Moustapha nag yabal ñëw boo gisee bu mënul ñëwal boppam moo ñëwal boppam waaye kenn ku nekk ci mbooloo mii mën na koo wutu doy ko doy ko moo tax ñu boole ñu ak ñu nekk ku ne man maa jiite waaye ñun ñëpp ñoo ko mas si ànd nekk moo tax ñu ñëw ci seen wet fas yéene ànd ak yéen ñu waxtaane li nga xam ni mooy waa baaxal màggal gi ñu sant yàlla ci liñ dégg yëpp nag ndax gouverneur buy amar bu fi nekkoon ak préfet mënut a weesu lii kon sant nañ leen gërëm nañ leen ci yi nga weesu ak li nga xam ne jot nañ ko fee dégg ndax wax dëgg yàlla li ma wax ci njàlbeen rek lépp mun tamatale matale ma leen di xamal ni muy age route muy euh, commissariat alimentaire amul ñu dara lu naqari ci yéen àddina moo baaxul lépp mun ta bokk jàpp waaye dañuy gën a góorgóorlu rek di soññante ci suñ biir waaye sant nañ bu baax ci turu njaboot gi sant nañ bu baax ci turu Cheikh Mouhamadou Moustapha ndax nii ngeen ko taxawee kenn ku nekk ci yéen feeñal na ni yéen dafa mel ni yéen ñu ëpp yéen sax ci màggal gi te mosuñu jaam luñ naqari kon ñu ngi sant bu baax monsieur le gouverneur di la ko seereel di sant ñi nga xam dañoo nekk ak ñoom ci département bi ak ak arrondissement bi muy sous-préfet Moussa wax dëgg yàlla su mag gi jubsee ñoom ñoo ñuy woo sëriñ bi lu manqué mbaa yi def nañu lii di ñëw déplacé ñëw guddi ak bëccëg kon loolu ñu leen ko seereel di la sant bu baax di sant seen i kilifa tàmbale ci ministre de l'intérieur premier ministre bi ci président Macky Sall ndax dafa am kóllëre digganteem ak njabootu Cheikh Mouhamadou Bara te kóllëre gi sàmm na ko te dañuy wéy di ko sàmmal di ko ñaanal li nga xam ni moom la ko Cheikh Mouhamadou Cheikh euh, Seydi Makhtar daan woon ñaanal mooy ndimbalu yàlla suñu borom ndimbal soo ko amee doo ñàkk dara ndax loo song di nga ko daaneel loolu song lul noonu dina daanu kon ñu ngi koy ñaanal di sant bu baax di leen gërëm euh, di sant di ñaan yàlla ci beneen bis bi yàlla dafa ñu jàmm ci réew mi ndax jàmm mooy suñu am-am jàmm. mooy li nga xam ne soo ko amee ñàkkoo dara ku ko amul mënoo am dara lu baax wata nag wallaahu yadru ila daari salaam suñu boroom day woote jàmm suñu borom jàmm la bëgg réew mi réewu jàmm la ma ngi ko fi noppi buñ nangu mukk kenn diñ ko yàqal ci wax wala jëf wala comportement réew mi réewu jàmm la jàmm mooy suñu koom-koom réew moo xam ni soo bëggee tukki doo taxaw fenn lu ma 30 000 te gisoo lu la yóbbu réew moo xam ni boo fa nekkee doo dox mukk lu mat 3 kilomètres te gisoo foo fajoo réew moo xam ne boo fa nekkee soo bëggee jàng doo gestu mukk te gisoo foo jànge moomu réew boo xam ne boo tëddee di ko suñu baara la euh, waxee léegi boo tëddee nelaw ba yàndoor ndax sécurité moomu réew réewu jàmm la réew moo xam ni yaakaar naa fonctionnaire yi ngi may dégg mosu am arriéré de salaire mosu fee am donc kon suñu réew bu amul problème buñ ko fi indi buñ nag buñ ko fi indi loolu la ñuy ñaan ci barke bis di sant bu baax di gërëm. la ca gënoon a am solo daanaka solution am na ci niveau régional bu ñu sukkandikoo ci rapport bi nga xam ne moo bàyyeekoo Kébémer te ngeen organiser woon foofu CDD euh, ci ñaari domaine la amoon as tuut lañ ñu xaw a ragal. mooy CSA ak Ageroute nee naa leen sànq am na engagement yi ngeen jël pour jafe-jafe yooyu xëy na bañ a am ma ne leen ba ngeen demee ci coordination ba bu demee ba ngeen gis ne xëy na mënu leen matal seen engagement nangeen ñu ko wax gouverneur def ay pexe bu weesoo ñaari service yooyu yeneen service yëpp nga xam ne jël nañ kàddu euh, nee nañ benn jafe-jafe du am engagement yi nga xam ne jël nañ ko bu soobee yàlla dinañ ko matal man tamit fañ ma interpellé woon mu nekkoon ñetti fànn nee na dinaa ko jébbal ñi nga xam ne mooy kilifa yi nekk ci kaw mooy mbirum bâche mbirum chapiteau ak mbirum chaise ci cérémonie officielle bi booba ministère de l'intérieur dina jot suñu bataaxal lu jëm ci mbirum brigade bi tamit nee naa leen bu soobee yàlla ministre des forces armées dinañ ko wax pour bu fekkee ne mën na ne brigade de proximité bi nga xam ne ma nga nekk euh, ci Mbàkke Kajoor mu ubbil ko euh, mu ubbil ñu ko pour yokk kaaraange pèlerin yi euh, dernière interpellation bi moo nekkoon ministère de transport li jëm ci piste yi nga xam ne war na dugg Mbàkke Kajoor te pèlerin yi di ko emprunté te mu nekk ay piste yoo xam ne dem na ba dégradé yooyu tamit euh, ministre des infrastructures bu soobee yàlla euh, dinañ ko jébal bataaxal ci cadre boobu alors beneen commentaire nag bi may def de façon générale euh, muy jëm ci chef de service yi événement religieux yi di màggal di gàmmu dafa am ñaari dimension muy dimension socio-économique ak dimension religieuse dimension socio-économique bi mooy ci occasion yi généralement la këru diine yooyu di profité wu pour li nga xam ne amoon nañ ko ci existant ñu renforcer ko ci wàllum infrastructure li nga xam ne amuñ ko tamit te ñu yaakaar ne bañ ko amee da leen di gën a yombalal liggéey bi gën ko yombalal pèlerin yi ñu def ko doléance moo tax dafa nekk occasion yu am solo ci dundu kër diine yooyu pour ñu renforcer wu en matière de d'infrastructure donc dimension socio-économique boobu buñ ñu ko perdre de vue ba tax na képp koo xam ne jël nga fi engagement fexeel ba engagement boobu ma matale ko Euh, ci cadre boobu sëñ bi nee na ci coordination bi le 19 décembre na ñëpp ñëw xool def reconnaissance xool engagement yi fañ ca toll bu fekkee ne am na bu matul ñu matale ko bu dee am na buy sooxe ñu jubanti ko euh, ndax bés bi le 23 décembre la donc à partir du 19 na service yëpp jéema a déporté wu sur le terrain xool le niveau de mise en œuvre des engagements comme ça ñu mun a rectifier li nga xam ne xëy na matul euh, dimension religieuse bi mooy kilifa diina yi dafa am wàll bu am solo boo xam ne dañ ko am ci réew mi muy tabax jikko yi mission boobu nga xam ne moom ngeen am ba ngeen ko réussir ñun dinañ réussir suñu mission ci wàllum administration lu tax bu ji koy rafete commandant de brigade bi dootul bëri liggéey bu ji koy rafete juge ba nekk ci tribunal ba dootul bari liggéey looloo tax yéen li ngeen représenté ci société dafa am solo ba tax na lépp li ngeen yëkkati ñun administration dañ ci war a dugal suñu loxo dañ ci war a jàpp ndax mel na ni ñun ngeen di liggéey en définitive ñun ngeen di liggéeyal en définitive jikko yi bu rafete rek kenn du sonn donc ba tax na lépp li ngeen soxla en terme d' accompagnement côté administration bu fee bu dee mu ngi dingeen ko am donc bu loolu weesoo nag euh, yaa ngi ma doon gërëm mais maa la war a gërëm hmm. waaw ndax yow tamit ni nga conduire débat yi rafet na de seen prise de parole maa ngi koy rafetlu ndax ailleurs gis naa délégation yoo xam ne ay en ay contradiction dafa am ci seen biir ay tendance ba nga xam ne dangay ngay sax pour joxe kàddu gi ndax dangay joxe kàddu kee waxee ne kee waxee na le yàlla dogal na nag loolu amul seen biir yéen a ngi def benn bloc nekk benn famille wane ne benn kilifa ngeen am wane ne yéen a bokk yoon donc loolu dama koy rafetlu di leen ko sante nag ndax man tamit da ngeen ma yombalal liggéey bi voilà bu ko defee donc euh, maa ngi gërëm ñëpp ñu fi teew à commencer par mon élément la le sous-préfet de Daaru Musti témoignage bi nga def ci moom nag bettu ma ndax yàgg naa ko xam euh, ku baax la ku am engagement la ku mën liggéeyam la tamit yaa foosul ci liggéey waaw wax dëgg fay la jàmbaar la donc préfet ma ngi lay gërëm la sant voilà donc euh, teg ci nag sama chef de service yi nga xam ne tamit kàcce ngaa la ama Euh, fu ma leen woo ci liggéey dinañ ma ci fekk si loolu tamit day daf may gën a yombalal liggéey bi voilà donc euh, ak monsieur la mesdames et messieurs de la presse yéen ay relais information yi yéen tamit euh, am ngeen wàll bu am solo ci liggéey bi alors donc waxtu baa ngi ñëw maa ngi leen di gërëm di leen sant